mbokk yi arbitre Jaxal Baba Jaxal a ngay arrière génn na làng gi Jaxal mbokk yi mooy combat spécial bi ci kanam tuuti Franc ak Sokh ñooy laale avertissement pour Baba Jaxal mbokk yi arbi bi sifflé waat na Bébé Bismi moom nga jàkkaar lool Baba Jaxal moo la wan ginnaaw Bébé Bismi dóor na ko Bébé Baba Jaxal jàpp na ko lu mu nar jël nañ saaku yi ñëwaat nañu Bébé Bismi mii daa décidé de Bébé Bismi daa décidé de Baba Jaxal am na day am deux avertissement lan Baba Diakhal am na deux avertissement abi bi sib la waat na Bébé Bismi moom nga jàkkaarloo Baba Diakhal moo la woon ginnaaw Baba Diakhal jokkaas na ma ngay dóor Bébé Bismi jël na ko ma ngay dóor Bébé Bismi dóor na Baba Diakhal Bébé Bismi kaawo Bébé Bismi Baba Diakhal plaqué na ko jege nañ saaku yi Baba Diakhal Esprit mbokk yi Jaxal am ñaar mbokk bi moom nga jàkk moo la wan ginnaaw Bébé Bismi nga jàkkaar lool Baba Jaxal jiital tànk ndi joor Bébé Bismi tànk ndi joor jàppante nañ mbëkk laay Jaxal ñàkk na combat Baba Diakhal ñàkk na combat am ñàkk na combat bi waaw waaw da koo mbëkk dañ koy disqualifié mbëkk amul ci làmb mbëkk amul ci làmb wala déet avertissement mbëkk jeex na Baba Diakhal ñàkk na Baba Diakhal ñàkk na Baba Diakhal du ko mbëgg Baba Diakhal ñàkk na combat ne ngay mer waaye sànni loxo moom Bébé Bismi eh, ay waay ay waay ay waay ay waay lii ñaaw lii ñaaw na lii ay waay xale yi lii ñaaw na il faut être sportif les enfants lii baaxul lii ñaaw na dinañ aj seen mbër lii ñaaw na Baba Jaxal ngay bañ Baba Jaxal ngay bañ Baba Jaxal ngay bañ